yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani diin ginnaaw bu ñu sunu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal xaadima rasul ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp di ziar mbokki jullit yëpp di ci jiital sëriñ Cheikh Mountakha Bachir ak mbooleem kilifa diine yi di am mbégte bu baax di ziar sëriñ Fallou Mbacke imam ak mbooleem jëriñ yi ñu bokkal liggéey bi ak mbooleem taalibay Cheikhul Khadim yi dox ci liggéey bii nu bokk di am mbégte bu baax tey ji ci bis bi nga xam ni si mooy bisub korite kon muy bisub euh, maanaam mbégte ci yoonu lislaam ginnaaw bu nu defee farata yi nga xam ni sunu borom moo nu ko digal ah ba sunu borom baaxee nu agsi ci bis bi tey fas ko yéene Euh, euh, feeta kon loolu ñu ngi ci sant sunu borom bu baax di ko gërëm di ñaan lépp lu nu ci jaamu yal na na ko sunu boroom nangul di profité ci occasion bi nag di sant di gërëm bu baax mboole mbokki taalibe yi mboole mbokki jullit yi yi nga xam ni si liggéey bi nga xam ni noo ko àndoon rawatina ci weeru koor wi ak it ni mu demee ndax ñu def ko ci nay mbas kenn mënta dem fenn yàlla sunu borom baaxee na a ah, lii ñuy tudd jamono ji muy application yi muy télé yi muy réseaux sociaux yi ak euh, lépp loo xam ne si rek mën nañ ko jëfandikoo ñu fekk nit ñi ci seeni kër waxtaan ak moom ci koor gi niñ ko daan defee fii ci kër sëñ Tuubaa gi boroom xam-xam yi waxtaan ak mbokki jullit yi ci seen diine loolu kon noo ngi koy sant sunu borom waaye nag di sant euh, mbokk yi nga xam ne si ñoom lañ ko seqaloon bu ñu ci jiitalee kon Serigne Fallou Mbacke imam ak mbooleem commission culturelle bi nga xam ne si ñoo ko doon organisé commission culturelle bi tamit doonoon ay pàcc am ci bu ci am solo muy cellule de communication bi ñu def ci liggéey bu rafet kon ñu leen di gërëm di leen sant di gërëm mbooleem conférencier yi nga xam ne si participer nañ ci ba ñi nga xam ne si tamit ba ca Sénégal ba ca bitim réew ñoom ñëpp participé nañ ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci turu mbooloo mi yëpp di profiter ci occasion bi tam di gërëm ni ma ko waxee woon léegi euh, maanaam support sociaux yi support télé yi ak yëpp yi nga xam ne si ñoo ñu jàppale woon ci liggéey bi ba ñu mën a àgg ci kër yi loolu nag buñ ci jiitalee lu demee ni Touba Vision Touba Monde bi euh, A2I ak euh, Bichri maanaam. ñëpp li nga xam ne si rek ñu ngi yëngatu ci yoonu murit ñëpp jàpp nañu ci kon ñu ngi leen ci gërëm bu baax te di leen sant te ñaan yàlla sunu boroom mi dara tawul ci barke xaadim rasul euh, seen tele yi yàlla na ko sunu boroom boole ci tele yi nga xam ne si ñoo gën a xarañ ci àdduna bi ndax gis nañ ni taxaw nañu taxawaay boo xam ne si lépp luy yaatal yoonu murit ñu ngi ci. waaw ci loolu nag <coughs> bi nga xamee ni si def nañu waxtaan yooyu yëpp ci weeru koor bi. te yàlla sunu borom baaxee nu bis boo xam ne si muy bisub sëriñ tubaab bi 18 juin Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla na ko sunu borom dolli leer te taas nu ci barkeem digaloon nu ko euh, bàyyeeku ak nun nu ci dox muy bisub lislaam bisub lislaam boobu nag am bis boo xam ne si nun noo ko jàppal sunu bopp di ko waajale 8 juin bi jagleer ko Serigne Mourtada Mbacke. niñ ko waxee woon léegi di ñaan sunu borom dolli ko leer moo bépp jullit te taas nu ci seen barke euh, euh, bis boobu tamit muy vingt cinq boobu macha allah mbokk yi taxawul ci taxawaay bu rafet ba lépp noo xam ne si daanaka xëy na gisa bi moo xawoon a jafe waaye lépp loo xam ne si bokk na ci liggéey bi lépp moom jàllale nañ ko ñu profité nag ci occasion boobu di soññee bis bi nga xam ne si nag mooy suñu bisu bopp bu ñu nee suñu bisu bopp nag mooy bis boobu nga xam ne si suñu borom dogal na Serigne Mouhamadou Mourtada Euh, bàyyeenu ko muy bisub lislaam di bisub sëriñ Touba nu ci profité nin ko daan defe rek di ci woot mbokki jullit yëpp rawatina nag mbokki taalibe yi nga xam ne si noo bokk nekk fii ci réew mi rawatina mbokki taalibe yi nu mbokkal Lombardia rawatina mbokki taalibe yi nga ñu bokkal Brescia yi nga xam ne si yàlla sunu borom baaxe na leen ba bis boobu am ci sunu territoire nu koy war a fonk bu baax ndax mënoon naa nekk fu mu mënti doon nuy jóg di fa dem kon ginnaaw sunu borom baaxee na mu ñëw fi ci mu nekk fi ñun nañ ci gën a profiter gën cee góor góorlu gën koo jàpp ndax bis la boo xam ne si benn rek la ci Europe muy indi la ko indi nag moo di lépp muy kër Serigne Touba gi kër Serigne Touba gi tamit buñ ko waxee li fi Cheikh Mouhamadou daa def ñun ñëpp leer na lu ni benn kër la rek fii ci Europe. li mu fi def muy bis bu 8 boobu teg fi aw xeer mu war a nekk juma ak ni kër gi demee ni tey jii mu ne woon mooy doon lampab lislaam lampab lislaam boobu nu fas ci yéenee jub jublu fas ci yéenee nekk kon loolu ni ngi ci woo mbokki taalibe yëpp ci liggéey bi ndax liggéey bi door na tàmbali na noo ngi ci te fas yéene wunoo taxaw kon ñu profité ci occasion bi rek di ci woo ñëpp bul jullit yëpp nag lañu wax ndax kër gi kërug lislaam la ku fi ñëw tey jii nga xam ne si di bisub it la Cheikh Mouhamadou Mourtada waxoon mu ne mun na doon làmpub lislaam tey jii mboolem jullit yi muy naar muy pakistané muy xeet wu mu mënti doon tey jii ñëw na fii di julli si kon la sëñ bi ne woon làmpub lislaam loolee agsi na kon ñu ngi ci profité di woo ñëpp ñu ñëw ànd liggéey bi ci loolu sax nag ren ji dafa am loo xam ne si dina ciy dolliku mu di kër sa dañ Touba gii nga xam ne si Cheikh Mouhamadou Mourtada dañu digaloon ninu lépp nañ ko teg ci ay këyit këyit yu leer kayit yooyu ñu teg ko ci ba ren ji mu nekk li ñuy wax euh, association APS maanaam association boo xam ne si euh, promotion sociale lay doon nu def nag teg kayit yi yëpp ci yoon ba ren ji mën nañoo jël loolu ñuy wax euh, cinq pour mille maanaam déclaration loo xam ne si déclaration de reddite lañ ko tudde ku nekk Italie xam nga ko nga war a def sette trente te ren li ëpp ci mbooloo mi war def sette trente ndax képp koo xam ne si euh, amoon nga ñaari kudd ren ji war ngaa def sept trente te ñi ci ëpp am na ñaari kudd ndax à part li nga xam ne seen dita dinañ leen ko fay kenn ku si nekk xayma nga ndeen ma nga casse intégration wala jot nga réduction ci tàddinaan wala lu mu ci mënti doon loo xam ne euh, IMS moo la ko fay loole il faut nga def déclaration d'hérédité boo defee déclaration yooyu nag cinq pour mille yi nga xam ne si c'est obligatoire nga joxe ko boo ko joxewul ci kër sëñ Tuubaa yi tamit état bi dina ko jël verser ko feneen te mën naa am fa nga koy verser <clears throat> fa ñu koy verser du doon fu la gënal kon ñu ngi joxe kayit yi euh, cinq par mille yi mi ngi ci téléphone yi mu ngi ci réseaux sociaux yi muy codice euh, fiscal bi nga xam ne moom la ñuy joxe kon li ñuy ñaan rek mooy képp koy def déclaration yi ak képp koo xam ngay def déclaration yooyu war nga koo mën a def te it xel nangu na ko ndax li tax xel nangu na ko moo di buñ leer ne li nga liggéey ci at mi lépp cinq pour mille da nga koy verser fenn foo xam ne si ndimbal lay doon wala boog ci euh, jàkka lay doon wala ci keesa lay doon kon bu fekkente ne lislaam génn na asaka loolu daanaka xaw naa nuru ak nun asaka doonte lee du asaka nag waaye nag ginnaaw par force da nga koy joxe nañ ko jéem a dugal fi nga xam ne si leer nañu ni liggéeyu Serigne Touba la te leer nañu ne dinañ ci am payoog Serigne Touba ñoo ngi leen di jéggalu bu baax di ziare Serigne Ablaye Seye mi nga xam ni si wax dëgg yàlla tamit jàmbaar la lool ci liggéey bi mu nekkal fi Touba Vision te it wax dëgg yàlla avant bi ay ati ati at mi ngi ànd ak ñun liggéey bi mu ci mu di mu ci doon ak ak ak waaram maanaam. ni ma ko mën a waxee ndax liggéey sëriñ Touba bi macha allah ñu ci bari kenn ku si nekk fa nga ca man yaa nga fa jàpp moom nag yàlla suñu borom féetale ko foofu musu cee tay muy guddi muy bëccëg muy taw ñuy réunion ñuy assemblée ñuy julli ak lu mu ci mënti doon sëriñ Ablaye teew na kon sëriñ Ablaye ñoo ngi lay ñaanal yow it di la gërëm di la sant li ngay liggéey te yàlla rek ak jëmmi sëriñ Touba ji tax yàlla na ngeen ci am loo. fooxa seen njort yaag sëriñ xaadim Seck mi noo xam bu baax mu nekk nag ñun fii a ah, ren ji bi xew-xew yi ñëwee mu jël li mu am lépp def ko ci suñu disposition te tamit ah, sant nu ci dara maanaam obligé wuñ ci dara ñu ngi koy gërëm moom it di ko sant di ñaan ah, tele bi yàlla na ko sa borom boole ci tele yi ëpp doole ci àdduna bi ñu ngi leen di jégalu bu baax ci leen ziar ak it mbooleem ñi nga xam ne si nag participer nañ ci ak ñu neet kii bi ñu am